wax ko keroog tabaski xam ne di njiitu réew mi seeti na ñëpp waaye seeteegu leen mu wax nag ni ci sunu jumaa lay jullee waaye wala ci sunu jumaa la jullee si waaye seet seegunu te seet si na ñëpp te nun nooy bunt bi waaye li ma ci ñor rek mooy sunu juma li tax ma yëkkati kàddu itam mooy euh, nit ñi ñu ci bari li ñuy dégg la ñuy gëm day baax lool nag ñu indil leen mboorum juma yi ndakaaru ju mag ji ñu naan grande mosquée de Dakar ndax bu ne sunu juma juma néegu bi yàlla la alxuraan moo wax ni wa anna al masajida lillah kon juma néegu yàlla la bu loolu wee itam mbir ngir nga moom ko day fekk nga làmb sa poos moo xam juma la moo xam kër la lu mën di doon nga tabax ko ci sa alal bu boobaa bu la neexee nga ni maa tabaxal yàlla ab néeg sama jumaa ji ma tabax ngir yàlla waaye moom su sunu jumaa te ndaw yi nga xamante ni bii seeni at gannaaw juma ji la feeñ mën naa indi am lënt ci ñoom moo tax ma ni nag faaw ma indi leeral yi ngir xamal imaam ni ko wala fi dañuy wax ni lu sotti am borom waaye tollu woon na ay jamono day wala bu fekkonte ni jumaa ji ñi ci dajale woon seenub xaalis tey dañ ñëwoon dañu leen koy delloo wala ñuy séddale jumaa ji nii kat ñii ci defoon seeni àll moom moomay bëgg moomoo jumaa ji du jot dërëm ndax ab dërëmam dugg ca woon ngir leeral nag am na journal boo xamante ni bi njiitu réew mi njëkk a jiite Sénégal muy Léopold Sédar Senghor parti bii wala seen partie bi ñu doon wax Union Progressiste Sénégalaise muy UPS dañoo amoon seenu yëglekaayu bopp bu ñu doon woote bu ñu doon wooyee booloog Afrique muy l'unité africaine journal boobu doo doon bind ay caaxaan maanaam li ma bëgg a wax mooy lamu bind mooy la ndax la mu gis la rek ñettali ko journal bi nga xamante ni bii génnoon na bisub gaaw di fanweeri fan ci weeru janvier atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom benn fukk le 30 janvier 1960 journal bi ñu ngi ko doon jaayee juróom benn dërëm muy 30 francs journal bi njiitul réew mi di Léopold Sédar Senghor conseil d'administration bi nga xamante ni ñoo yilifoon journal bi wala ñoo ko doon saytu moom président Léopold Sédar Senghor moo doon président conseil d'administration ba kuréel googu ñii ca bokkoon moo doon Lamine Gueye Ousmane Socé Diop Joseph Gomis Mody ak Assane Diop journal bi ayu bis gu nekk la daan génn ab hebdomadaire la woon fanweereelu yëglekaay ba muy numéro 30 ba moo ñëw ak noonu ci bi nga xamante ni bii buurub Maroc joxe na xaalis ngir jumaa dañoo wutoon ak kuréel goo xamante ni bii dañu doon wër jullit yi ak maanaam kilifa yi ngir ñu jàpp ci liggéeyu jumaa ji nga xamante ni ñoom dañ doon wër di def ket di laaj léegi nag bokk yi nanu déglu ba xam ñoom wala moom mi ni ñoom ñoom moom jumaa ji ñaata la ñuy joxe woon ba ñuy defar jumaa ji journal boobu nga xamante ni bii moo indi ñu joxe ci jumaa ji soo ca demee da ngay fekk ca kaw sëriñ Fallou Mbacké joxe na million rakkam sëriñ Bassirou Mbacké mi waajuru Cheikh Mountakha mi toog toogaayu sëriñ Touba yàlla na fi yàgg te wér joxe na téeméeri junni ak ñaar fukk muy six cent mille Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma joxe na téeméeri junni muy cinq cent mille Serigne Modou Xaban Mbacké doon xalifa Serigne Ahmadou Ndoumbé Xaban joxe na ñaar fukki junni muy cent mille Serigne Modou Mamoun Mbacké doon xalifa maam Cheikh Anta joxe na deux deux cent mille di ñeent fukki junni rakkam sëriñ Takko Mbakke joxe na ñaar fukki junni muy cent mille sëriñ mu bal la doon xalifa borom daarul muuti joxe na ñaar fukki junni muy cent mille rakkam sëriñ Cheikh bal la joxe na ñaar fukki junni muy cent mille sëriñ Mouhamadou Habib di rakk sëñ Modaw la nga xam ni gannaaw sëñ Modaw la moo magoon ci njabootuk borom Darou Mouhty janvier 1960 bi ñu ñuy laaj xaalis bi fekk na ko ci tawat ji nga xamante ni ba ñu eggee ca weeru mars wa moo ko yóbbu la mu doon nekk nekk ci tawat joxe na juróom benni junni xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Ablaye Fall Ndar joxe woon na fukki junni cheikh al islam sëriñ Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci Baye Niass joxe woon na million ak ñeent fukki junni muy un million deux cent sëriñ Abdou Aziz baax mi doon xalif général des Tidianes joxe woon na fukki junni sëriñ Adi Touré borom Fass Touré te waajuru sëriñ Abdoul Aziz Touré joxe woon na juróom-ñetti junni sëriñ Ahmadou Dem bu sookoon joxe woon na juróomi junni di vingt cinq mille francs sëriñ Ahmadou Cissé bu Pire joxe woon na doon waajuru sëñ Moustapha Cissé joxe woon na ñaari junni di dix mille francs sëriñ Babacar Ndiour di kilifa ak diine nekkoon kees joxe na cinq mille francs di ab junni Sëriñ Fallu nag jaayante ni weeru janvier wii ma joxe million booba jumaa ji di yegg saa bu dellusee dinaa jox Dame Dramé mii sama secrétaire ab million mu yóbbu ko jox ko ñuy defar jumaa ji noonu la ko defee da ko dale ci 1960 ba 1964 bi nga xamante ni ci la julli jumaa ji ndax jumaa ji ñu ngi ko julli ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent at mu jot Serigne Falilou Mbacké joxe na ab million Serigne Modou Mamoun doon xalifa maam Cheikh Anta moom it ba mu joxee ñeent fukki junni daf leen ni ba ba jumaa ji di yegg janvier bu nekk danaa joxe lii ma joxe tey muy ñeent fukki junni di deux cent mille kon mbokk yi ñii ñoo joxe gannaaw xaalis bi bàyyi ko woon Maroc ñu tabax ci jumaa ji ba niñ ko julli ba nuñ ko jullee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 1964 kon ñii bu ñu revendiqué bu ñu sunu jumaa keneen wërta taxaw naan sunu jumaa ndax jumaa néegub yàlla la rawatina ba ñu koy tabax di laaj sa dërëm demu ci nga wàññeeku nag bëgg wax ni jumaa ji yaa ko moom kon euh, yaakaar naa ni leer na li mu wax ni nun nooy bunt bi loolu moom yitteelu ma li mu wax ni nun ab gouvernement lañu gouvernement boobu la ko waral fa mu jaar mënoon naa cee leeral ndax lépp ngeeg man liñ doon wax république euh, lébu la taxoon ñu sos ko fa mu jaar lépp xam nañ ko te jamono yooyu wuute na ak léegi lool lool lool lool kon nag bu taxawee ni sunu jumaa day baax lool ñu leeral nit ñi ni leen jumaa yi ndakaaru jii kët nii la ko julliti Sénégal yi tabaxe jarul ma ciy dellu si ndax kenn ku nekk te nga joxe woon ci sew ñàq journal bi bind na ko ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars keroog ba ñu koy ubbi itam teew na fa Serigne Cheikh Awa Balla teew na fa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma julli ga Serigne Abdoul Aziz Dabakh xalif général des Mourides xalif général des Tidiane moo ko jiite ci teewaayu buurub Maroc di Hassan ak Senghor ak ay jullit yu baree baree baree baree kon mbokk yi mu gudd mu gàtt taarixub jumaay Ndakaaru jii di grande mosquée de Dakar nii la deme ñii ñoo ci joxe seenu ñaq kon kii ni seen juma warna na noo wax nan la ñu def moom jumaa ji lii daal laa ne woon mënuma ko ñàkk leeral ndax journal bi xañ na tasaaroo na waaye am na ñooñ mënuñoo dawal maanaam mënuñoo liir waaye ku leen ko waxal ñu dégg danañu xam ni jumaay ndakaaru nii lañu ko tabaxee maa ngi leen di sant